aousubillahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala bokk yi ñuy janool ñu ngi leen di nuyu nuyu bi lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu di leen siyaara bu baax a baax ci jataay bi ñuy amal ak yéen ci càkkuteefu kuréelu liggéeyal ku tedd ki di ko waajale bis bu am solo muy rabian safar bi nga xam ne ñoom dañ koy taxawu ñoom kuréel googu di ñu am taxawaay am pas-pas bu dëgër ci liggéeyal sëriñ bi te seen liggéey ñu gën koo jëmale ci xam-xam rawatina ci ndaw ñi yaakaar naa bokk yi leen di topp yëpp gis nañ liggéey yu am solo yi ñu ciy def ñu di leen ci jaajëfal bu baax di leen ñaanal suñu borom suñu borom defal leen ci tawféexi sëriñ Touba. tey jii nag ñu fas yéene waxtaane ak yéen ci tomb boo xam ne kuréel googu tànn na ko di ko waajale liggéey bu am solo boobu mu nar def ci Rabiul Safar te mooy lu jëm ji mbirum jaayante ci lislaam jaayante ci lislaam nag bu ko waxee rek mooy kilifteef rek ci lislaam incha allahu taala tomb boobu lañ nar ànd ak yéen ci lu gàtt rek kon ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di tàmbalee nuyoo yi ak siyaare yi ci fadilatu cheikh Mouhamadinul Muntaqa xafisahullahu waraahu wa ayyadahu di ko ñaanal suñu borom dolli ko kattanal dolli ko wér dolli ko defal tawféex ci liggéey Serigne tubaab bi mu jiite bokki euh, mu baayaa fil islaam te mooy jaayante ci biiru lislaam day lu ama am solo ndax kenn ku ne xam ne ne diine li ko tax a jug rek mooy defar àdduna ak àllaaxira wala boog fexe ba nit am texek àdduna ak àllaaxira rawatina nag diine lislaam yi nga xam ne moom day diine joo xam ne euh, diina fitra la euh, tàmbalee ci sunu maam aadama yonent bi sallallahu alayhi mottali ko waaye naka jekk ci taarix saa bu ñëwee li muy yittewoo mooy luy lijjanti nit ñi ci ñaar ñaari wàll yëpp nag ci lu jëm ci wàllu seen mbirum àdduna waaye nag ci lu ay itam luy tax bu ëllëgee ñu am tax ak àllaaxira moom du teqale àdduna ak àllaaxira day diine joo xam ne diine la joo xam ne du bàyyi dara ci dundu doomu aadama bi loolu moo tax nag mu bàyyi xel tomb bu am solo te mooy tomb am kilifa ndax ni yàlla bindee àdduna faaw dañ koy nos bu nos gi amul rek li ñuy wax faw fawda mooy am maanaam anarchie mooy am te anarchie bu amee Euh, kenn du jariñu ñëppay sonn ñëppay am jafe-jafe ci côté boobu ci zaawiya boobu ci la lislaam euh, gisee ne faw kilifteef am faw mu am koo xamante ni mooy jiitu ni ñu nga xam ne noonu lañu ñu ko alxuraan jàngale yonent bi sallallahu alayhi jàngale ko ne ñaar sax buñ fi àndee wala ñett nañ jiital kenn ndax àdduna moo bindoo noonu faaw dañ koy nos yàlla suñu borom mi bind àdduna dafa nos àdduna lépp ci ay règle lay dox yoo xam ne sunna la dañ koy tuddee sunna kawniya yaakaar naa moom la alxuraan di wax falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila mënta soppeeku noonu la ko yàlla xas bindee ba noppi saa boo xamante ne nii nit ñi ñi ngi ciy jaar résultat yi mu leen di jox yu leer nañ lay doon saa boo xamante ne nit ñi ñu ngi koy won ginnaaw résultat yu safaan ba la leen di jox ñoom ñëpp ñu teg seen ñu teg ci seen bët moo tax alxuraan ñëw leeral ko yaa ayyuhal lazina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ci lañ xamee rek ne bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jugee itam faaw rek mu am ñuy jiitu te taarix loolu la ñu jàngal ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam laataa ñuy jublu ci euh, euh, suturaal ko euh, yóbbu ko ci barabam bu tedd bee muy noppaloo sax dañoo lijjanti mbirum ku ko fiy wuutu ba noppi maanaam foo xam ne mooy nekk kilifa ak mbooloo loolu dañ ko lijjanti ba noppi ndax day farata am na sax ci kuréelu lislaam yoo xam ne ñoom dañ ko boole ci ponki lislaam dañ jàpp ne lislaam mënta taxaw te loolu amut xëy na bu dee ci ahlu sunna wal jamaa àggale ko foofu waaye gis nañ ne lu mënta ñàkk la fardu kifaaya la boo xamante nii bu xeetu yëpp maasee fexe ba mu am dana dana dana euh, toppam suñ borom wàcc leen waaye buñ ko sàgganee ba amul nag ñoom ñëpp ciy am jafe-jafe te ñu ñëpp gis nañ ñàkk gi ko ña lislaam ñàkk fi mu ne nii lan la ko jural te mooy yeneen xeet yi ci des euh, def li ñuy waxe takaalub alayhim alal ummal islaamiyya ñoom ñëpp mel na dañoo sottandoo xeetu lislaam dal ci kawam te dara warulu ko rek lu du tàqalikoo gi ñàkk génn kilifa goo xam ne moom moo mooy mooy mooy mooy mooy nekk kilifa ñëpp ñëpp topp ci ginnaawam ndax loolu moo leen di jox doole joo xamante ni kenn du leen kenn du man ci ñoom dara kon ci mabda iyan bu ñu xoolee ci principe bi rek dafa bokk ci yi nga xamante ne lislaam daf ko sàkku ci jullit yi mënuñu ko ñàkk am bu ñu ko amul seenu dund diine ji ci boppam mooy njëkk a nekk loo xamante ne ni eh, day jàngoonteeg jafe-jafe ndax diine ni yàlla bindee àdduna mooy dëgg yàlla dafa bindee àdduna dëgg day xeex ak ak neen ay caaxaan léegi nag bu fekkee dëgg gi nag moom amut ximaa kaaraange woo xam ne moo koy aar euh, faaw rek day day am day am day day am jafe-jafe te loolu ñun ñëpp ñu ngi koy gis moo tax day lu ama am solo loo xam ne mënta ñàkk rawatina nag suñ jamono jii ñu toll euh, ñu gis ne mi ngi gën di manqué mu ngi gën di wàññeeku te li mu a jur rek mooy masalan li ñuy wax. raaya gi mën nañ koo jël misaal ci euh, jur gi nga xam ne mooy dem ci àll bi di wëtti euh, di sàmm ji bu demee te amut ku ku ko jiite koo xamante ni moo ko yor di ko sàmm rek bu soobee yàlla boo moytuwut till yeeg rab yi ci àll bi dañ leen daal di sonal loolu day mel ne mooy li nga xamante ni moo dal jullit yi day tax tamit li ñuy wax euh, li ñu wax tafakkuk nizaamul mustama day daal di am maanaam société bi ni mu nosoo Eh, kii yore lii kii yore lii bu fekkee ne kenn yilifut kenn kenn kenn ku ne sa kilifa ak bopp nga kenn ku ne day daal di sañ a def lu ko neex te boobaa itam day indi ay ay jafe-jafe yu bëree bëree bëri kon daal bu ñu koy xool ci mabda bi ci lislaam rek day loo xamante ne ni lu mënta ñàkk la ci dundu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li taxoon eh, mu liggéey liggéeyam bu gaaw boobu mooy ñi ñëwoon di ànd ak moom ci li nga xam ne moom lay woote bu ñëwee dañuy jaayante ak moom ne ko jaayante nañoo ak yow ci nangam ak nangam ak nangam nangam ci topp yàlla topp la yow yonent bi sallallahu alayhi ci lépp looy digle ak lépp lu lislaam woote muy ab engagement ñu engagé ko ci sa wet ci loolu lañ sukkandiku ba def liggéey bi ñu def lépp ci at yu gàtt ñu dindi fi ay caaxaan taxawal fi dëgg ba noppi tasaare ko ba mu daj àdduna bi àdduna bi yëpp ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi tamit loolu moo doon wëy di wëy di wëy ba ci at yu mujj yi rek ci taarixul hadis muasir bi ñu mujjee daaneel li ñuy wax adawal Usmaaniya boobu ba léegi xam ne lislaam ëmmatut génn kilifa gu mag goo xam ne moom la ñuy jaayanteel booba ba léegi dafa mel ne lislaam ji réewu lislaam yëpp dañoo daal di mujj nekk ay victime ndax euh, yeneen réew yi dañoo ñëw coloniser leen yilif leen di def ñoom lu leen neex waaye loolu lépp rek du tee jullit yi war a xam ne lu ñu war a delluwaat la anam yañ ko mën a defee itam yu bari la bu ñëpp mënta daje itam gox yi ne war nañoo mën a am menn njiit wala dëkk bu ne war nañu am njiit parce lu mel ne Maroc yi nga xam ne dañuy am seen buur bi mooy amirul muminin loolu bu yaatoo mu am ñoo xamante ne ñoo leen tënk ci diine kooku ma war a taxawu diine ji nit ñi tamit li feek mi ngi jaar ci yoon ñu ànd ak moom loolu day doon loo xamante ni euh, lislaam daf koo sàkku muy ndigal loo xam ne mënta mënta ñàkk ndax lislaam euh, dafa àndaale ak état te état boobu ngir mu mën a am faaw day am kilifa kilifa goo xamante ne nii day xam mission mooy lan lan la war a liggéey bu ko defee lam laaj ci ay délégation ay pouvoir mu mën a nommer ña nga xamante ni ñoo ko yo boo ko defee loola wàcc ba ci base bi ba ci société bi ñu mën a toppatoo mbirum mbirum xeet bi yëpp kon day loo xamante ni lu mënta lu mënta ñàkk la bu dee ci suñu contexte euh, Sénégal gii nag moom wala ci biir yoon wii nag su borom defal ñu tawféex feeñal fi jëmm joo xam ne mat na sëkk kuutaay ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy ñëwee euh, yeesalaat lislaam indiwaat la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon te mooy ngirum jaayante ñi nga xamante ne noonu lañ ko jàngee ci alxuraan karim yonent bi sallallahu alayhi wa saxaaba yi dañoo jaayante moo nag moom inna allaha ashtara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ba gis nga bay'atu ridwan laqad radiyallahu anil muminina iz yubaayi'unaka tahta shajara kon loolu lu kenn mënta dindi la lu sax la ci lislaam mënta ñàkk mënta ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci fu ngeen fi ànd ñett fu ñu fi la ñaar nañ nañ jiital kenn ci ñoom loolu kon day tegtale ne lu mënta ñàkk la loo xam ne li fee xeet wi ñu ngi ciy tënku ah di am mën a ma am ak mucc di mën a saytu seen dund mission bi leen lislaam di dox loo ñu di ko mën a dox moo tax boo ñëwee ci waa tasawuf ñoom ba tey mu feeñaat fa day wane rek ne kilifteef moom dafa nekk ci biir lislaam ci biir tasawuf ñoom dañoo xam ne nit ki mënta nekk ab suufi te amut kilifa waaw faaw nga am kilifa ndax euh, sart boobu ñuy teg ñoom ñii ñii di ko di ko tuddee tasiru ruuxi ñi di ko tuddee baraka ñi di ñeneen ñi di ko tuddee xokkumu tasawuf maanaam mënoo nekk ab yi te amoo kilifa goo xam ne moo la yilif nga jokk ci moom mu war laa mën a tarbiya loolu la sëñ biy tënk rek kullu man lam yataddam lam yata addab abada ala zam ah, nu ko xer sax zamana ala yaday sayxin fa yalxal mihana nit fi ngir mu mën a dem ci boroomam faaw day am koo xamante ni nii moo nekk ci kanamam jàngal ko ko loolu même boo génnoon cadre diine ci àdduna rek noonu la nit ñi li ñu bañ ci diine sax dañ koy nangu ci mbirum àdduna dong mooy amul kenn koo xamante ni mën ngaa jekk-jekk man dara te demoo jàng ko ci nit mu doon sa kilifa nga xam danga koy bàyyeeg sa bopp mu yar la ca yar la ca ba nga man ko ba nga xamante ne mat nga nga door a nga door dem looloo tax Sëriñ Tuubaa ci ci ma maxaalixu niiraan mu tënk fa tënk bu am solo mooy bi mu wax ne e, képp wax xam ne wuute nga ak dëgg rek kooku day sori yërmande yàlla mel na dañ koo laaj na ko dëgg mooy lan mu ne dëgg nag ci nii rek la mën a amee mooy nit ki jàmm bi tàmbalee ci tawxiit ba am tawxiitam bu wér jaar ci fiq te mooy jëfe ndigalul lislaam yi arkaan lislaam waaye nag boole ci nag marxala bu njëkk marxala bu mujj bi nga xam ne moom mooy raaya bi moo ñu tax a jóg te mooy tasawuf mooy tasawuf neen yooyu bu ko nit ki eh, te ñu gën ko xamee ci ihsaan léegi ñu xam ko ci tasawuf bu nit ki xasee am loolu nag léegi nekk na muslim moom xaqan nekk na muslim xaqan waaye ginnaaw mu ne wa baaduhoo yaslu ko in raamal wusul xalaa yedday mu kammilin yaq fur rasul bu bëggee àgg ca boroomam nag faw mu bu nag eh, jaayante koo xamante ne nii ku mat la ko jaar ci tànk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu mën koo àggale ca mën koo àggale ca borom subhanahu wa taala yooyu yëpp kon day wone ni nit ni yàlla bindee àdduna kilifteef mënta ñàkk ci genn wet nag day dafa gën a fare nag ci diine waaye ba ci suñ biir àdduna yi kilifa mënu cee ñàkk. daal euh, day tomb bu am solo boo xam ne dañuy sant mbokk yi nga xamante nii ñoo nekk ci kuréel gii di liggéeyal ku tedd ki ndax loolu itam dara jiitu ci liggéeyal ku tedd ki ndax ku lislaam yi kase kase ko fi tax a ñëw waaw maanaam lépp lislaam indiwaat na ko gis nga bi mu ñëwee li mu teg ñëpp topp ci ginnaaw ñëpp topp ci ginnaaw mu wommat leen ci lislaam wommat bu leer nañ ñi waaw ginnaawam boobu léegi tamit loolu mooy dox koo ko fi nekkal rek ñëpp mbooloo mi topp sa ginnaaw ngay wommat nit ñi ci lislaam loolu lu ñu war a bàyyi xel la te xam ne lu mënta ñàkk la bis bu sooxee rek anam gu mu ci mën di sooxee rek wala yaasu billaahi taala diine ji mooy am jafe ndax diine ni ma ko waxee ci tàmbali bi euh, mooy mission bi ñu yàlla doxaloo ci kaw kaw suuf te sunu borom subhaanahu wa ni mu bindee àdduna daf ko bind teg ko ci ab nos lépp nos la diine lislaam bokk na ci lim rawee yeneen diine yëpp moo dina moom amul lu muy bàyyee amul lu muy bàyyee ci jëmmi doomu aadama ji loo xam ne du ko toppatoo moo tax ca ca njëlbeen rek mu jug toppatoo tomb boobu nga xam ne moo jëm ci lu koy nos ndax ba ci àdduna bi ñëpp ngi nos seen bopp réew moo mën di dem dañu ut kenn jiital ko muy kilifa dëkk ba mooy li ñuy wax tey ji président de la république moo xam premier ministre la moo xam forme bu yi ñu ko amee yi mu wuutee yooyu yëpp yooyu yëpp lislaam fekk na mu def ko bëri na sax yoo xamante ni ni ko jamono xamee tey nii ci lislaam la ko jànge waaw ndax am na ci loo xam ne lam laaj cim xel ak xam-xam doomu aadama rek xamu ko waaye ci li lislaam indi ci wax yu gi ci lañ ko jànge ba mën koo mën koo teg ku la ko gën a mën a rafetal nu mu koy jëfandikoo nag euh, daanaka moo lay gën a avancé ci ci ak dundam ci ab doxam ku la ko gën a réer itam mooy gën a am mooy gën a am jafe-jafe kon daal euh, mu bàyyaa moom ci lislaam day loo xamante ni cosaan la loo xamante ni nekku ci loo xam ne man bu ñu neexee def bu ñu neexee bañ a def déedéet day loo xam ne dafa nekk ci digg bi faw mbooloo mi am kilifa goo xamante ne ni dañuy jaayanteeg yàlla ci turam moom moo fi teew suñu borom subhanahu wa ci turam bu ñu ko defee rek lépp day daal di baax ñi nga xamante ni ñoo ne ci kanamu mbooloo mi itam li nga xam ne moom la lislaam santaane ci taxawaay mooy taxawal diine li war a am ci diine ñu fexe ba mu am li war a am ci nit ñi ñu fexe ba mu am mooy nisaam yooyu yëpp xewoon gis nañ ci jamono sidna Omar na Xataab bi mu ñëwee ni mu ci dégg gi mu dégg lislaam ak dox fi jamonoom toll nga xañ na am na yu bëri yu mu indi yoo xam ne jamono egg gu fa woon waaye gis na bi mu ñëwee ni mu defee daal di nos arme bi armée armée bi Euh, defar lu jëm ci wàllu xaalis bi ñu tuddee xaalis bi nga xam ne moom la islaam islamiya moom ak yu bëree bare bëree bëri mu nas ko yooyu kilifa rek moo ko mën a def waaye bu ñu bàyyee kenn ku nekk sa bopp mënoo ko mënoo ko il faut mu am kilifa goo xam ne moo yëlif nit ñi la jëm ca njàng ma mu ne mu mën a teg li lislaam teg na lii la mu man faa féetal ay nit ñi ñu ñu taxawu loola la jëm ca tey jii ca wér-gu-yaram ñu ne ñii ñoo koy toppatoo la jëm ci liy aar réew mi mooy soldaar si ñu ne ñi ñoo koy toppatoo li jëm ci lii tax nit ñi am jàmm ci biir dëkk bi te mooy euh, surta tey jii li ñuy wax surta ñun ñu mën a nome ñu koy toppatoo nos ko la leen di jëmal lépp lu jëm ci asaka ji ak ñu koy jëlee yëpp am bu leer nañ la boo xam ne dara mënu koo maye te kilifteef amut koo xam ne moom lañ ñëw ñu bàyyaa ak moom mu nekk mu nekk suñu kilifa moo am fépp ci àdduna ci ay anam yu wuute la amee nag ñiy def république ñiy def euh, li ñuy wax mamlaka te mooy royaume yëpp <laughs> loolu Ah, hadaf bi yëpp benn la rek te mooy maanaam eh, am kilifa goo xamante ne ni mbooloo mi ci ginnaawam la ñuy topp muy dox muy dox ci li nga xamante ne ni mooy doon njariñu mbooloo mi loolu bu amee rek eh, yàlla suñu borom subhaanahu wa taala loolu bokk na ci yërmandeem eh, xeet woowu day daal di mën a dox day mën a am jàmm day mën a am li ñuy wax ak dal li tax yàlla indi nit ci àdduna te mooy mu mën fee nekk nekkin woo xamante ne nekkin mu am jàmm la ba mën a def li ko yàlla sant te mooy jaamu yàlla day daal di mën a am waaye bu fekkente ne loolu amul rek nag daanaka mi ngi mel ne jur goo xamante ne nii benn responsabilité bu mu nekk nekkul ci loxol kenn day wëtt ci àll bi rek boobaa nag li ñuy wax loi bi am ci àll bi moo fay dox lu ne sañ naa ñëw dugg fi def ci lu ko neex yàq ci lu ko neex te kenn du du ko mën a kenn du ko mën a dindi loolu moom yaakaar naa ñun ñëpp tey jii teg nañ ci teg nañ ci bët li nga xamante ne ni noonu la ñuy Euh, agressé réewu jullit yi di ci def loo xamante ne ni neexu leen te lépp li leen ko teg rek nekkul lu dul dañoo amatul jenn genn kilifa goo xam ne moo leen yilif boole doole lislaam jëpp tënk ko ci benn tënk nit ñëpp tënku ci kon daal jàpp naa mbokk yi xañ na ni ñu ko waroon a kii xaw euh, ñu jàpp rek ne euh, mu bàyyaa moom dafa bokk ci li nga xamante ni lislaam daf ko ëndaale te muy lu nekk lu naturel la xamante ne ni bu bu amut walhiyaas billahi taala waaye bu amee nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu nag fii ci suñu dëkk bi alhamdulilahi rabbil alamin yàlla defal nañu fi ba léegi yàlla nag ñu koy may mooy suñu force nag mooy suñu doole moom la ñu ñëpp nawe benn baat boo xamante ni moo yëkkati mbooloo mépp moo koy toogloo lu ñu war a jàpp la fonk ko bu baax a baax a baax a baax te liggéey ci nag maanaam force bi bi mu ñuy jox ñu gën koo exploité ndax man warees na ko gën a mën a exploité bu baax a baax a baax ci wàll yëpp xam ne sëñ bi dafa amoon projet defar nit ñi am na ci loo xam ne ci njàng la jëm am na ci loo xamante ne ci développement la jëm nit ñi yooyu yëpp ci kilifteef gi la war a la war a la war a jugee teg ay projet yoo xamante ni alhamdulilah rabbil alamin ñu ni ñu ngi am na ñoo ne ñu ngi dox ñu war a jàng ñi li ñu war a jàng lépp dañ leen ko jàngal ci wàllu tarbiya ak yooyu waaye loolu rek yemu ca wàllu faj ma warees na koo lijjanti wàllu dund service yi li ñuy wax service euh, yi nga xamante ni euh, ak madaniya moo ko laaj maanaam bu ñuy dëkk bu ñuy dund ci ab dëkk nekk ci ab société moo ko laaj yooyu yëpp ndox ma am yoon yi am dëkkuwaay yi am ak di def ay projets yu jëm ci kanam waaw bu ko defee woo ci mbooloo mi mu leer ci seen bët ñu dox ci yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne ni am baatu kilifa daf na ko da koy dimbalee daf koy dimbalee nit danaa ci nettali foofu xam naa fa laay tëje loo xam ne ab naaru Mauritanie ci màggal gi daaw bi ñuy bi ñuy def nadoo bi fii bi ñu bëgg a julli daa waaxu ba ñëw ba ci taabal bi ñu doon def taabal ronde bi mu daan ne yéen dangeen am loo xamante ni yéen dong ko am ci àdduna Touba dafa am loo xam ne ñoom dong ñoo ko am ci àdduna daa da teg lu xorom daan waaye nag yéen xamu leen ko <laughs> loolu ci waaye waaye nag yéen xamu leen ko kon nag dëgg la. Euh, ñu gën a xamaat bu baax a baax euh, lii ñu am mooy lan euh, moo di ne yàlla ni mu bindee àdduna léeg day dem ba ak jafe-jafe am li waroon a nekk am jafe-jafe waaye ñun yàlla defal nañu tawféex ba mu feeñaat ñu mën a am kilifa goo xamante ni dafa mat ci gépp dafa mat ci wet gépp mu Cheikh na Ahmadul Xadim ñëwaat rëddaat la lëntoon ci lislaam te loola daf caa bokk mooy nga am kilifa goo xamante ni mooy jiitu ci yoon wi nga war koo topp loolu nag Euh, ñun ñëpp war koo bàyyi xel saa su ne di def lépp lu koy suuxat tey mooy tundiku lépp loo xamante ne da ciy indi daci ciy da da ciy indi jafe-jafe te xam ne luñ ko jëndee rek jëru ko waaw adduna nag dana indi ay ixraat di la won yoo xam ne léeg ngay jàpp ne loo euh, lee moo gën te fekk da ngaa xamul li nga am rek day baaraas boo xam ne ab ñag kilifteef day ak ñàkk boo xamante ni ku ci nekk ci biir dana la ñàkk dana la sàmm bis boo ko génnee rek da nga xam ne Eh, nu mu tuddati tilli yeeg njaay àll yi ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ci bitt bi kon ñi ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex yi loolu ñu xam ko bu baax eh, te tënku ci dox ci ñaan tamit suñu borom defal tawféex kilifa ñi nga xam ne ñooy nekk ay kilifa ñoom itam yan bu diis boobu ñu yor ñu mën koo yor ci anam gi nga xamante ni noonu la ko lislaam bëggee boo ko defee rek ñëpp ay maase jariñu daa xam naa dañuy tënk foofu wax ji di dellu di sant bu baax kuréel gii di liggéeyal ku tedd gi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy defal sëriñ bi waaw euh, sëñ Tuubaa moom ku koy liggéeyal dara jiituwu ci xam-xam waaw dara jiituwu ci xam-xam te gis nañ taxawaay yiñ ci am di soññ xale yi di leen defloo ay activités yoo xam ne li ko tax a jug lépp rek mooy di leen soññ ci njàng ndax njàng moomu bu amee rek jafe-jafe yu bëree bëri day daal di waaw day daal di day daal di day daal di euh, saafaraw ni ko Cheikh Mourtada daan waxe moom Cheikhul Khadim daan nit ñi moom seen jàngaroo ñu mag ji nga xam ne ku leen ko fajal mel na ne fajal nga leen seen jàngoro yëpp mooy jàngoro yu réer waaw nee na bu deñee rek yeneen jàngoro yi ci des yëpp kii liggéey bii ngeen def nag ci foofu la dugg mooy musaabaxaat yi ngeen leen di defal ci ci alquran ci xasaayit ji téere xam-xam yi loolu day am day lu am am solo loo xam ne day soññ ndaw ñi ci mu njàng te ndaw ñi bu ëllëgee ñoo fi a nekk kon loolu moom ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax tey woo ñëpp ñu jàppale leen ci waaw di ci woo kilifa yi ñu ñu dax mu ko bu baax a baax daal maddiyan yan ci ci ci ci anam yëpp daal ci seen teewaay ci seen jàppale ci anam yi yëpp rek suñu borom nangul leen ko bu baax a baax ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ngi kon wàcce kàddu bi foofu di jégalu bu baax nag.